Euh, nekk di politique euh, ci APR di jàppale ministre Thierno Alassane Sall ci wàllu communication politique euh, tey dañoo jógoon dem ci poste de santé yi nga xamante ne ñoo nekk ci commune bi mu nekk première étape maanaam jóg bu njëkk ci ñu ciblé woon poste de santé bu Darou Salaam bu Ersan bu Sampaté comment dirais-je bu Grand Thiès ak bu Thiali. Euh, mu nekk cinq postes yoo xamante ne dañ fa waroon a dem tey euh, indi leen ay ampoule ndax euh, ministre Thierno Alassane Sall ci politique bi nga xamante ne moom lay def ngir jàppale askan bi pour wàññi seen jafe-jafe wàññi seen coono gis na ne facture courant yi ngeen di am day cher. mu ne euh, boo fayee euh, facture courant mu cher nga jël ampoule monte ko sa consommation wàññeeku mel na ni comme moom yëkkati na xaalis jàppaleñ ci fayum facture kon boo xoolee ci consommation mu ngi mel ni salaire euh, fonctionnaire nga wàññi impôt yi rek boo wàññee impôt yi yokk nga salaire bi kon lu mu def nii mel na nii yokkute la ci askan bi mais aussi day nekk ci beneen fan boo xamante ne insécurité maanaam ñàkk kaaraange bi am ci réew mi moom aussi en tant que ministre de la république daf cee war a indi loxoom pour que au moins sénégalais yi ku nekk ak foo nekk nga mën a am jàmm euh, lii dafa nekk étape boo xamante ne dañ ko tàmbalee rek mais euh, am na yéene aussi yaatal ko ci biir commune bi yëpp am na yéene yaatal ko même ci biir département bi mais aussi du ci bànqaas poste de santé yi rek fas yéene nañ aussi dem ci daara yi fas yéene nañ dem ci école yi dem ci jumaa yi ak jàkka yi pour tout simplement wane ne ministre Alassane Sall lépp luy mbébétam mooy mu fexe Thiès suqaliku fexe cees jëm ca kanam donc ci politique boobu lañ nekk moo taxoon tey ñu jaaroon fii euh, indi leen ampoule yooyu ñu ngi leen di gërëm di leen di sant et di ñaanal ministre Alassane Sall aussi yéen bi ko président Macky Sall yéen ci wàllum courant mu am ci ndam am ci yokkute ba waa Thiès yëpp ci seen bopp ñu ngi leen di gërëm di leen di sant.